aleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu def si waartoon rek bëgg a waxtaan nag ci Sénégal ah, di réew moo xam ne noo ko bokk te kenn ku ci ne nag am ci xalaat yoo war a joxe euh, ten bañ a doon ay dictateur maanaam bokk xalaat li nga xam ne mooy jëriñ réew mi nu bokk ko defandoo am nañ ci yaakaar ne buñ defee ak juboo dana am te réew mi dana soqaliku te daanañ ci yor ci yoon woo xam ne yoonu jàmm lay doon bu yàgg ba tey ñi wax ci li jëm ci Sénégal am dëkk yu naan dañoo bëgg a génn ci Sénégal bu mel ne Touba euh, xalaat la sax ndax jaadu na kenn ku ne la nga xalaat nga wax ko nit ñu bokk ci xalaat jombul ne ah, ñoom li wax noonu lañ ko waxee mais niñ ko gisee ñu ko gisee réew mi dafa jot ñu delloo ko ci ay province dafa jot ñu delloo ko ci ay province waxuma kenn ku ne moom sa bopp di déedéet réew mi dafa amoon doole réew mi dafa taxawoon réew mi dafa am ñu ko xeexoon réew mi dafa woon ay royaume yu fi nekkoon te ban bàyyi affaire royaume yi bàyyi affaire province yi boobu ba ndege ni gisu leen benn sénégalais boo xam ne jaruñu nga jaruñu nga ca la nga wala nga yëg sa bopp ci réew mi euh, bu ñuy wax province Afrique tax ñuy wax royaume Afrique tax ñuy wax tey Canada bu demee ba jël style bi nga xam ne moom la suñu maam yoroon tey ba développé ci ba développé ci defe naa nun ñi ko moom war na mën a dellu ginnaaw xoolaat li ñu war a def réew mi niñ ko yore baaxut baaxul niñ ko daggee baaxul te niñ ko daggee te sax daggee ko noonu tubaab bi la Cheikh Anta dafa ne un peuple est relié par une conscience historique philosophique culturelle éducative ba ci spirituelle aw askan dafa lu leen boole la leen boole nag mooy loolu ma leen wax mooy daakaande ji leen jàppale yooyu buñ àndut du ngeen mën a ànd moo tax tubaab bi mu dikkee ah, man de sama jenn maam boo ko ni ñi yëpp ñu ko proposé woon ne ko kan dellu si Kajoor ak Bawol ak Siin tubaab ne du ko def ñu ne loolu doo ko def moo ne su ma ko defee comme li Cheikh Anta Diop wax mooy am waaw du ngeen neex a coloniser parce que yéen yéen ay bokk aada bokk cosaan bokk culture bokk nangam bokk nangam te ñi nga xam ne bu fekkee ne jorof la njaay lañ sant dañuy taxaw ne moom dëkk bi te moomuñu dara dara lañ moomut comme noonu la demee tubaab bi ne du ma def loolu dama koy dagg ay cercle dama koy dagg région dama koy dagg ay commune ak dama koy dagg dama koy dagg lu dem tubaab bi dagg ko te ponkol yi toll nañ noonu am aada am cosaan am démb am histoire war a mën a dellu xool lu jaadu ñu def ko nu lànk moo tax maa ngi ñaan son ko son projet bi nga xam ne moom lay def ne diviser le Sénégal en quatre provinces quatre provinces nañ ko def ñu dellu démb ndax ka démb dara bonu ci ndax démbay nun dama ne démbay nun nan dagg Sénégal def ko quatre provinces province bi nga xam ne moo jëkk par exemple man noo jël problème la province du Fouta par exemple xam ngeen ni Fouta met gis ngéen ko ah Saint-Louis ca lay bokk Richard-Toll ca lay bokk Podor ca lay bokk Matam ca lay bokk ak dëkk yi nga xam ne ñoo ko wër kooku benn province la Tukuru nga xam ne yàgg na province bu yàgg la ñu dekkal ko ñooñu dañoo war am province la province de Dakar ce sont les Lébu dañoo war a am seen province su bopp ak seen gouverneur yi bopp kan changé tuuti ngir yàlla daañu am beneen province foo xam ne le Sénégal oriental et le sud du Sénégal qui veut dire la Casamance ak ak ak ak le Sénégal oriental Tamba ñooñu bun ñu àndee déggoo nañ te ñoo bokk fleuve kon bu Sénégal amee quatre provinces yooyu dafay taxaw Kajoor dafay taxaw le Kajoor et le ak Bawal dañuy ànd ak le Sine et le Saloum boo xool ñoom ñëpp ñoo ànd ñoo nuroo ñoo bokki melokaan war nañoo mën a ànd Kajoor la euh, Kajoor Njàmbur Bawal ak ak ak ak le Sine Saloum ñooñu bu ñu àndee doon wenn say daañu mën a déggoo. kon kan soppiku ngir yàlla lii xaajalewuñu dañoo mel ne Canada ni Canada installer la même chose ñu installé noonu il faut il faut ñu am choix il faut ñu nekk ay nit il faut ñu am responsabilité il faut ñu doon ñoo xam ne dañuy gëstu ci seeni maam di jëfe waaw province yi nañ ko dagg ni ko sëñ Muntaxa waxee nag man d'accorduma ci loolu d'accorduma ci loolu Touba mën naa bokk ci province bi nga xam ne bu Kajoor la ndax Kajoor ak Bawol ak Njàmbur ak Siin Saalum wenn xeet la wenn waaso la benn culture la benn langue la benn langue la mais soo bëggee sukkandiku ci Vatican déedéet Vatican foog ñu maandu nañ bàyyi Vatican mu def yëfam Vatican bi dama ne ban koy samp ban koy samp yàgg na te nan la tax samp ko ñoom xam nañ ko te Vatican du ku mag moom de ku mag moom déedéet Vatican bi du ku mag moom te Vatican bi chrétien ba ca Sénégal ba ca Ngaay Mexek ba ca Ndarak ba ca France yëpp ñoo bokk Vatican bi kon boog tëkkaleen sax daganul déjà Touba rek bu bokkee ci capitalu euh, Kajoor maanaam Bawol Siin ak ak ak Touba euh, ñu bokk ah te ñoo bokki lépp ah ñoom ñëpp ay jullit lañ te li ci quatre-vingt-dix pour cent ay murit lañ kon lu ñooñu war nañu mën a toog waxtaan déggoo waa Touba créé loo xam ne yoonu kenn du ci nekk kenn dir si ngir yàlla ci province yi te bàyyi toppandoo gi toppandoo gi alal jurul yeex moo lay jur tey bu ñëw tey ci province yu Thiès par exemple pour la province du Kayor nga xam ne ci la Njàmbur nekk ah ci la la Sine Saalum nekk ah ci la la Bawol ne ah province bu am solo ngi noonu province bu am solo ngi nii Touba Mbacké ne ci ah géej gi nga xam ne di nga am am nañ ko ba mu doy dañuy mën a dem phosphate mën nañoo dem te ni nii calculer économie day jaar yoon ni ñuy def mooy euh, province boo dem la fa nekk ci alal muy miin muy moo or muy jama waa province baa ko moom yéen a ko moom yéen ko moom exploitation yi bu jotee ba ngeen noppi na ngeen jël trente cinq pour cent indi ko ci gouvernement fédéral bi gouvernement fédéral mooy jàpp di dimbalee ak di teete bu ko defee ngi daan ñetti assemblée ah assemblée bi nga xam ne ñoo yor ñoo ñoo ñoo ñoo ëmb dëkk bi ak assemble bi nga xam ne mooy assemble bi nga xam ne ñooy xalaat ñooy takk ñooy jëf ak ñi nga xam ne ñooy joxe autorité pour ñu def ah, ak benn délégation boo xam ne ñooy dem ci euh, assemble général bu fekkee ne fédération bi woote na ah loolu yomb la bu ko defee ñu ne ñu ànd ko dal te xam ne daanu dem ngir yàlla kan bàyyi toppante bi ñuy def ak tubaab bi baaxut waaw waaw la dóor ngoone latir bu may fàttaliku indépendance du Kayor samay raw day daw Amari Ngoone Sobel Fall samp xëy bi ne au parlement pourquoi acceptez-vous si facilement cette corvée transporte du sable soudan le Djolof pour le Bourba le Bourba est-il donc de votre naissance que toi baay bi tontu ko non non mon fils Amari le Bourba est puissant et son peuple est derrière lui guddi googu la Amari Ngoone Sobel jóg waaw song la Bourba jël na ko deqal rendi ci guddi ga guddi ga balaa bët set samp samp nañ bawal kon bawal ak njàmbur ak kajoor war nañu man a ànd ak jolof kon dellu si dëgg dem ci histoire ak taarix waaw te toppandu ba leen ko seen làkki tubaab yi baaxul ba leen ko te réew mi ñu fi jàngale wolof ak Haalpulaar province bu ne ña fa dominé nañ jël seen langue boobu nañ jël seen langue boobu province bu ne làkk bu fa dominé na jël làkk boobu bu ko defee ñu ko jàngale ci classe yi nit ñi xam ko bu kenn dara gënt rafet ñu ne la province du sud et du Sénégal oriental le Sénégal oriental et sud du Sénégal ñu ànd nga xam ne foofu boo fa demee ah da nga fa fekk Kédougou ah da nga fa fekk Ziguinchor da nga fekk dëkk yëpp da nga leen fa fekk ñuy yemb mat taxaw am alal doy sëkk bëgg liggéey ah, te xale yu samaat ñoo nekk ci tund woowu ah, boo fa jógee encore nga wàcc si ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw ci eh, Dakar nga xam ne yaa fa nekk ah, ak possibilité touriste yéen amak ak ak marbre bi nga xam ne am na ci route ñaay bi maanaam lépp la ñu am ah, amul benn dëkk mooy tudd bu manqué leen waaw benn dëkk boo xam naa tudd nga manqué leen tey boo demee ci côté Fouta bi gis ngeen ko fer baa nga fa phosphate baa nga fa Géejung Darga nga fa Richard Toll ma nga fa Mbay maa nga fa Waalo nga fa ak lépp waaw nga xam ne ci la Waaloy bokk Waalo di bokk ca waa Ndar boo ko defee ñu bokk seen jëfi bopp dama ne bu ci toogee xalaat ci indi ñu mat am xam-xam xam démb xam démb ñu toog ànd gëstu ko defe naa ne Sénégal mën na ko da quatre promesses yoo xam ne promesse bu ci nekk da ngay am gouverneur boo xam ne yaa fa toogal dëkk ba. élection présidentielle bu dikkee ci day ànd ak élection gouverneur yi loolu yomb na loolu yomb na waaw bu kii nekkee jiitee tey région bi bu ëllëgee beneen région jiite noonu lañ koy toppee moom ay capital voilà capitale du Kayor day am nga xam ne ñooy seet fan lañ koy def. le Fouta ah, day am ak le Waalo fu ñu def capital bi le Sénégal oriental et le sud du Sénégal kii la Casamance dañoo war a am seen capitale ainsi de suite ainsi te dëkk dëkk bu ci nekk am nga droit am sa monnaie locale promesse bu ne am nga droit am monnaie locale te dañ boo ne monnaie nationale boo xam ne noo ko bokk monnaie boo xam ne dañ am suñ banque centrale boo xam ne noo ko moom waaw te province bu ci nekk da nga benn bourse boo xam ne ak code yi fa lañ koy jëlee yaa ngi dégg te province bu ci ne bu ci nekk am na loo spécialisé di ko liggéey moom benn gouvernement buy contrôler tout en communication la ma leen waxoon trente cinq pour cent yi da ngeen koy jox le gouvernement fédéral mu gérer ko comme projet mën a leb ci gouvernement bi fédéral wala nga leb sa moromu province wala nga dem ci biti bi xaalis di investir sa dëkk def la nga war a def kon sëñ taxaa tudd na wax ji waaye ni ma ko gisee man noonu laa ko gisee ten bàyyi Vatican bi Vatican bi ñun ay jullit bokkuñu fu ñu jaar bokkuñu ay diine ah, di roy ci ñoom sax pour man rafetut te am xam-xam avant Vatican bi am fekk nañu am suñuy kajoor bawal siin saalum kenn del si ci liñ moom ah, moderniser ko defar ko ba mu baax mu dëppoo ak jamono nit ñi respecté ñu liggéey comme Canada waaw ah, kon maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax te ñaan jàmm jàmm dong laa bëgg ci réew mi jàmm képp laa bëgg ci réew mi di encouragé Ousmane Sonko ne ko na muñ na muñ loolu yàlla ab jaam da koy nangu te ndokk bam ko nangoo Macky Sall wóor na ko ne moo ko tooñ wóor na Sénégal yëpp ne Macky ko tooñ te lii ko Macky def yilif nguur gi tey nguur gi tax mu di ko def tey bu ay province Bawol du nangu Kajoor du nangu Siin du nangu Saalum du nangu le Fouta du nangu dama ne amul kenn koy nangu le sud du Sénégal amul kenn koy nangu kon asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di ñëpp yéen ñëpp te ñaan jàmm ten bokk ko xalaat ci mbir mi kan ci xalaat ay xalaat dong la nag ay xalaat képp la puis san loobu jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf